salaamaaleykum waaw ah, ñu ngi leen di nuyu di leen bismillah bismillah waaw nee na ñu ngi leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte bu baax te mën ak ku koy jéem bokkul